Fallilu moo ko boole woon ak Senghor Serigne Fallilu moo leen boole woon soxna si ku mosa a toog ci wetam mu nette la ko soxna si jóge fi soxna Bali wéyal loola 2000 ñëw ngeen perte pouvoir bi juñu nañ ko léegi mën naan daanaka ñëpp dem soxna Bali moom jàpp ak ngorom sax ci yéen xam leen kër lii ëpp li wu leen ma ci. booba li li li li koy wër li mi nat nat nat mus ci am soxla dañ daan yónnee ci ci kë ci kër gi ñuy seq tëb kër gi ñeewul solo ndax Sëñ Tuubaa def na fi lépp te gis ngeen fi mujj kon dañu sant yàlla dañu sant yàlla li li am solo rek mooy eh, taxawaay bi nga xam ne nit ki dana ko taxaw ak itam principe yi nga xam ne dana ko sàmm loolu mooy li am solo ndax sunu borom mooy dogal yàkkamti tax te am giiroo tax te am gore di taxtaam moom ku sunu borom mooy dogal kon soxna Bali moom foofii la la nekkoon loolu nag yéen sàmm ngeen ko bu baax loolu tam nag bi fi jógee tam lool yi mooy li nga xam ne ñun moom la ñu sàmm si yëpp du muy wax na ko léegi ñun dañoo amul droit ñàkk sàmm li nga xam ne moom lañu fi bàyyil comme noonu képp koo xam ne mën naa ne sonn na ci ñun loolu moo ko sonal ndax dafay obligation ndax buñ demee bàyyi la fi. am nañ la bàyyeel li nga xam ne mooy sa warugar mooy nga joxe ko sa njaboot nu gën a naat nañ la ko joxe woon te lii ci héritage boobu la bokk loolu mooy li ñu sàmm ci yéen kóllëre googu aussi mooy li nga xam ne dañ koy dañ koy saytu moo tax ngeen xam ne fii moom seen seen kër seen kër la woon bërki dëmb seen kër la woon dëmb tey jii aussi seen kër la na nga xam ne daal soxna may defoon na ko soxna Bally def ko na ngeen xam ne noonu lañ leen jàppe moo barki dem mi nga xam ne moor moor ñëw na fi ne ma nañ daan def rek lañuy def ma ne ko loolu day bëttu ndax xam naa ne duñ def neneen ginnaaw bi nga si nga soog woo soxnaa su ngeen waxaat moom itam wax na ma ko biig te loolu aussi ñu ngi sant yàlla ndax fii moom kër gi benn bopp la mënoo fi dugg ba xam lu ma moom wala lu moom moom dañ see yar di ko di ko sant yàlla te te te jàmm ji fi nekk ak stabilité fi nekk loolu moo ko sabab parce que kooku dafay responsabilité te man jàpp naa ne man la gën a nekk sama responsabilité moo tax man loolu mooy li nga xam ne mooy li may sàmm ndax bu loolu amee rek lépp baax ndax loolu moo mën a sabab jataay tey bi mën a am te bu soobee yàlla yaakaar naa suñu Tuubaa dinañ ci dimbali kon daal ñu ngi sant ñëpp ñi ngi ñi ngi gërëm di leen wax ne dikk ngeen xaj na de soxna si nekku fi Ousmane yi nekku fi waaye nag ñun ñi dese ñun ñoo am responsabilité sàmm la nga xamante ne bii ñoom moom la ñu seqoon te foog naa ne yéene yi rafet na te jumtukaay yi yor sax ñun pour def ko foog naa ne ñoom yoruñ ko woon ndax jamono ji waxtu nekk dafay gën di jëm ca kanam kon foog naa ne suñu xel yu baree bari war naa mën a dal. dikk di ziyaare si kër yi nga xam ne ñoo nekk ci biir Touba. di feddali sunu kóllëre ak ñoom parce que ku xam parti socialiste di nga xam ni que dafa am histoire bu gudd ak Touba rawatina diggante Serigne Fallou ak Léopold Sédar Senghor rawatina diggante Serigne Abdou Lahat tamit ak euh, Abdou juuf ak tamit ñi nga xam ne ñëpp ñoo ci topp après ak Ousmane Tanor Dieng euh, fii nga xam ne nag fi lañu leen fi ngeen ñu fekk tey ñu di fi ubbee daanaka mbir mi. Euh, dem nañu ginnaaw bi ñu jógee ci euh, xalifa bu tedd bi muy sëriñ euh, Muntaxa bu sëriñ Basiru euh, nga xam ne moom ku am cofeel ci Ousmane Tanor Dieng la woon ku am cofeel ci ku mel na man mii parce que dama koy fréquenté lu baree baree bari di waxtaan ak moom àndoon tamit ak moom di liggéey lu baree baree bari ci wàllu élevage ñu sant ko gërëm ko ci li nga xam ni fan yii paase mun naa ni ci làmmiñam bu tedd am barke ci la génne ba tey réew mi xaw a am tuuti dal gu ci am ndax ku ne woon sénégalais yi il y un mois que président ab Ablaye Wade dina jóge këram dem delluwaat palais de la république nuy ji doomam kenn du ko gëm waaye nag yàlla kuy dox lu baax lu ne ku ne moo la gën a mën a def lu baax ba tey ña nga ne di gisee sax ñun ci luñu nek mais dal en tout cas ma nga fa té déjà lañu ñu jottona mosal ci masalikul jinan rek won nañu ni que réew mi amna lo nga xamné ci walu jamm ci walu sérénité ci walu paix am lo nga xamné mi ngi fiy dox euh, mu wëlbeutiku tamit am ñoo nga xam ni dans les liens de la prévention ñu libéré leen de la de la détention ñu libéré leen tay ba ku ci nekk delluwaat sa kër

pour permettre population sénégalaise bi ñoom ñëpp ñu toog ñu waxtaan ci lu jëm ci ay élection ci lu jëm ci démocratie ñu waxtaan ci lu jëm ci économie ñu waxtaan ci lu jëm ci pétrole beeg gaz bi ñu waxtaan ci lépp lo nga xamné dafa jëm tamit ci walu social loolu nek solo am solo go nga xamné ne wax dëgg euh amul fenn fo nga xamné ne mën nañu ko fa takk tey kon bu fekkente ni loolu lépp amna nak tay ñu ñëw fi Touba gërëm nañu ci Serigne euh, Mountakha gërëm nañ ci tamit Serigne Bass Abdou khader parce que xam nañu taxawaay bi mu ngi taxaw gërëm nañ ci waa Touba yëpp parce que ku nekk xam ne ni ñoom ñëpp ku ci nekk ca la nga nekk ak fa nga nekk am na rôle boo nga xam ne joué nga ko ci. donc loolu tey muy gàmm muy euh, màggal làggalu Touba nekk œuvre boo nga xam ni kenn dootu ko fàtte ndax Cheikh Ahmadou Bamba ku nekk xam na ni moo waral moo waral màggal gi te euh, moom li nga xam ne moom la doon xeex. xeex kook tubaab yi te yat jógul euh, euh, saatu jógul euh, jaar si génnul mbar comme ni ko wolof fii di waxe loolu lépp mu def ko rek ci lu lan moo mën a yëkkati daru nit ku ñuul lan moo mën a mën a mën a tax nit ku ñuul siggi mu jaral ko mu jaral ko nag de longues années yoo nga xam ne duñu ko privé muy gis njabootam waaye loola tey defe naa ni li mu jur ku dikk tuubaa mbaa nga dem Masaalikul janaan la fa xew bërki démb di nga xam ni que la mu doxe woon jar na ko kon ñi ngi gërëm waa këram yëpp di leen sant di ñaan yàlla yàgg fee ñëw tamit ci màggal gi ndax màggal gi nag bi yoon nag ñun du ñu cee dikk ak xol bu euh, xol bu diis daal ndax Ousmane Tanor Dieng mi ñu nekkaloon depuis plus de vingt cinq ans chaque année ñu nag moom ñooy ànd xew bu am ci dëkku diine bu mu mën a doon rawatina tey comme euh, màggal gi tey moom la ñuy waxtaane fii chaque année moom la ñu fi daan àndal kër yëpp du ñu fay dem fu ci nekk du ñu fay dem waxtaan ak ñoom wan leen suñu cofeel ci ci ñoom ñoom itam ñu delloo ñu ko ñu am ci mbégte parce que tey fu ñu dem rek fàttaliku nañu fa Ousmane Tanor ci ay valeur am ci ay démarche am ci bëgg jàmmam euh, léegi lañu doomu euh, Serigne mustapha bu Serigne Cheikh Mataley di fàttali ni Serigne bi toog nañu mu ni moom day li ñuy dégg yëpp Ousmane Tanor kenn mosu koo dégg ci lenn loo nga xam ne rek lu yàq la wala lenn loo nga xam ne lu ñaaw la lu mas a génn ci biir gémmiñam te kooku c'est le pays tout entier ñoo ko ko témoignel kon loolu rek ñun dalal na encore suñu xel ci xam nañu ni que un leader bu mat leader un leader responsable moom la ñu amoon tey kon bu fi jógee ñu ñun itam la mu daan def nag tradition booba du ñu koy perpétuer loolu moo waral sunu tànk fii tey ci Touba. ma loolu euh, euh, mébétu Ousmane Tanor la woon bëgg-bëggam la woon ñi tàllal nañu sunu loxo ñëpp même ñi nga xam ne nekkuñu ci parti socialiste tàllal nañu leen sunu loxo waaye nag ànd bi nga xam ne ñun moom la ñu ànd ak Macky Sall. dafa nekk position boo nga xam ne duñu ko jëloon ba ñu daataa dem élection deuxième tour bu 2000 waxante ak moom loo nga xam ne lu wér la duñu ne ku gagné premier tour ku ku ku war a dem deuxième tour ñun ñi ñëpp nañu ànd ànd ak yow ci liggéey bi jàppale la ci liggéey bi bi loolu amee. donc mu am une alternance ñu nekk ci biir gouvernement de majorité présidentielle élargie mais mais en tout cas coalition Benno Bokk Yaakaar tey gouverner réew mi ñu nekk ci depuis sept ans ba amaat ci un deuxième mandat Ousmane Tanor Dieng li daan wax La coalition bi buy yàqu bu mu ci parti socialiste ñun loolu la ñuy wax ba tey kon fa ñu ci coalition bi remettre ñu en cause benn yoon suñu participation à la coalition coalition bi ñun ci ñu ko construire lañu bok ci ñu ko taxawal lañu bok bokk te it yaakaar naa ni bu ñuy nat gouvernement bi li nga xam mom la liggéey ci réew mi parti socialiste du ci dess ginnaaw lolu motax ñu né duñu rester ancré dans Benno bok Yaakaar ku ñu tàllal loxo dinañu tok dinañu waxtaan ba xol ci yane condition ngay ñew wala ci yane condition ngay tok voilà salaatul lazi fi kulli sahrin wa fi safar hamani ala mahim ma al hassa wa safar